saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa CNG ma rëq ndiggu arbitre yi jiite woon grève ba arbitre ya doon laaj seen àq seen yelleef ba lànkoon ne dootuñu siffler CNG génn na ay dogal teg ko seen kaw Sitor Ndour Malick Ngom Babacar Diop ak Aboubacry Dramé ñoom ñépp ku ci nekk CNG jox na la sub suspension Sitor Ndour ma nekkoon président CCA di commission centrale des arbitres moom dañ ko radié à vie moom arbitre international bi CNG radié na ko à vie maanaam li des ci lu jëm ci lutte avec frappe ci CCA moom it yoo xam ne du sex sifflet sifflet mayor lit sans frappe ci CCA moom it juróomi at lañ ko fëgg cinq ans yoo xam ne moom Malick du ci seex sifflet bu dee Aboubacry Dramé moom concept ñaari at ko jox ñaari yoo xam ne du arbitre fen ñi jàppoon ne diggante arbitre yaak CNG danañ pencoo jàmmoo décision yi juy na leen ci grève arbitre yi ñu commencé le 29 février moom CNG génn na jaasi ja caw fu ko neex bu dee arbitre yi ñoom gannaaw bu CNG génne ay décision boobee bu tasutit fay am na ca ku xëy ñu annoncé la ne la Franc dem na jàmbaar wrestling académie bu mu la bett digganteem ak mbooloo bu jeexutit ca la jëm keroog ci arène nationale ci digganteem ak bébé Saloum mbooleem ña gunge woon jàmbaar wrestling académie la ñu ca parcelle mbooloo gisuñu ko dégguñu ko ca entourage ba la too ma nekk coach si jàmbaar wrestling académie moom la gisoon muy coach si Franc yeneen coach si yaa nga fa woon gunge ko di boobee nag am na kenn ci waa parcelle mbooloo ku ca àddu la mu xam le mooy diggante franc ak mbooloo léegi question de temps la yàggatul dara franc dana démissionné wala ñun ñu jël suñuy responsabilité bu déposé wut lettre de démission ñun ñooy jël suñuy responsabilité te lii mu def ci combat bi dafa waroo règlement yu CNG am licence parcelle mbooloo ba noppi beneen écurie gunge la ñun bu ñu bëggoon a bloqué bi te du am danañ ñu ngeen xamle àndaat nañu booloo nekk benn te nee ci combat soq bii danañ ko gis danañ gis 100 pour cent pikine pikine bu booloo doon benn bu ñu jàllee ca galaa ca mbuur fedem production moo fa woote woon samedi passé waaye libidoor moo jël ndam la libidoor bu kayaar mbalka maag bu mbuur la daan ci kanami mbokkam bu dee ca leseye mamadou moustapha sañ moo ko jël ci kanamu mbàkke njaay boobee fekk na ci jiloor obbali di fa wone boppam moom ibu njaay obbali